Eh, tey jii ci talaata ji teg nañu xeer bu njëkk ci kër Serigne Touba gi nekk fii ci capitalu Argentine ci teewaayu xalifa Cheikh Mouhamadou Al Fadal Serigne Abou Mbacké ak kilifa yu am solo Serigne Cheikh Sidil Makhtar Mbacké ak jëwriñu daayira yi nga xam ni ñoo nekk ci biir réew mi ci jiital Serigne ba bi jiitee fédération bi. mbokki Touba Argentine ak li ko wër yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Touba Argentine TV. bu ngeen gisee jataay bi ak xaside yi ak kilifa gu tedd gii di wàcc ci oto bi muy Serigne Abo Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke ñëwoon fii ci Touba Argentine mbokki taalibe yi fi nekk di murit yi ak jullit yi fàgg woon fi kër Sëñ Tuubaa mu war a teg xeer wi moom ngeen di gis nii moom ngeen jàkkaar lool kon bu ko defee rek ñu bàyyi leen xaside yi ba ci kanam ma jóg sant yàlla tey way xayru naba muhammadu rasulillahi soppe borom tuuba muhammadul muxtaaru kenn dootu gis kemam alayhi barke borom tuuba na buur yàlla doli xéewal taaha wa mustafa mahalaali wala saabi waa borom tuuba ma jóg way ka daa way Mustafa sayid alwara ba mu xëy def ko géej ak yàlla aski sëriñ Tuuba bu daan way rasuulillaahi sama sëriñ bu daan way rasuulillaahi sama sëriñ bu daan way rasuulillaahi kun sëriñ Tuuba fa buur yàlla tànnee taaha muy sayid al waraa la Seex Bamba jiitoo góor ñi doon maam borom Tuuba ñu jiital ko fi duniyaa wa uxraa wa barsaqu hunaa wa xadan mooy waaja ëskey sëriñ Tuuba mu woolu ko bil koy ndàmbam ya moom doon ak mayam gannaaw abduhoo wa huwa muy jaarahoo cey borom Tuuba yonen baa ko jox doom minallaahi jaxsatan fa gànnaar ñu fab seen ruuya jébbal sëriñ Tuuba sërif yaag sagam ya den di way naa ko ahmada sërif yaag sagam ya den di way naa ko ahmada xalilan habiban li rasoolay borom Tuuba sëriñ Tuuba wa badrul muniirul xaaba fir xar bi suma la seex saat bu waxoon maam Bamba ëskey sëriñ Tuuba insha allah sil seti sil mulki wal malakooti balay duma dañ di la santate xaadimu sil fadilati insha allah sil sil mulki wal malakooti man duma dañ di la santate xaadimu sil fadilati yaa nix ma seex noo ngi lay siyaar ànd ak yéene di jafas ñaar nga boole nu ci say ñala doy ci sab xidmati tuuba sëriñ tuuba sëriñ tuuba sëriñ tuuba mbokk yi tey teg siyaar bi ci sëñ Cheikh Mbacke Matiley mii di suñu kilifa te teew fi tey eh, ci sëñ Abou Mbacke ñëw fi fas yéene tegal nu xeer wi tey sëñ Maam sëñ Mourtala Mbacke ginnaaw bi ñu ko jotee xamal ko ne sëñ sëñ Abou Mbacke ñëw na fi eh, fas noo yéene ñu bëggal mu tegal nu xeer wi mu rafetlu ko lool ne sëñ Abou moomu day sàlla bu ma fi dajee nag moom mooy teg xeer wi wax ci moom jikko yu rafet ak woyofam ak mbaaxam waaw seere na ci yow jikko yu rafet yoo xam ne newoon na ma na ma ko leeralal sëñ bi xam xamal ko ne moom la su ma fi dajee nag moom xeer yi moo koy teg waaw kon nag Mbacke am nañ kontaan bu baax di la ko séeréel di la séeréel cant ak taalibe yi ci yow jërëjëf Mbacke kon salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi alhamdulilahi rabbi alamina sant yàlla bu baax ginnaaw bu leen sëriñ bi jotalee nuyoob sëriñ tubaa sëñ Muntaxa Mbàkke ak njabootu sëriñ tubaa gépp ak njabootu Cheikh Amadou Faral gépp jëlug cantam ak nuyoo teg ko ci loxol doomam sëriñ Sidi Moxtaar mii di sëriñ Touba fi barab bi kon bu sëriñ bi agsee sëriñ Yankoba Gueye jëwriñ wax ne jot na sëriñ Maam Moor moom Cheikh Amadou Mourtala mu jox ko ci ndigal mu jottali ko Serigne Abul Baraka moom Cheikh Amadou Fadal mu tegal leen xeeru kër Seexul xaddim gi ci Touba Argentine kon alhamdulilah rabbil alamin eh, li ñu doon wër gisu nan ko eh, di wër kër Seexul Xadim ba Cheikh Amadou tombe ca ñëw tegal leen xeer bi kon loolu na ci julli yëpp jàpp taalibe yi taalibe yi moom muy wartif ci ñoom waratuñoo tëdd guddi nelaw ba yandoor te kër gi noppiwut ndax sëriñ Touba li mu wax ci këram yi dañoo taxawee taxawaayu juma ak jàkk kon lu ci waay def nanga xam ne sëriñ Touba nga ko defal waaye sa boppit nga ko defal ndax jàkk ak juma moom lu ci waay def ëllëg da nga ko fa fekk kon sëriñ bi a ngi leen di sant ngeen góor góorgóorlu ci ba bu fi dellu see déwén ngeen dalal ko fii tey dana ñaan ci barke sëriñ Fallou xéewal yi koy def mu jàpp ni leen ba ngeen am xolom nag di ko ci def ci barkab sëñ Touba na xéewal yu bari lool ngeen di ko ci defee neen ci bëgge na ngeen ko bëggee. mu ne nag na ci seen xel dal bu baax sëñ Fallou ngi sëñ Baara ngi nii du ñu doon ñaar kenn lañu woon di santit sëñ Mamor mi nga xam ne ma tey li mu li Yankhoba wax jëwriñ ba ne bu ko fi fekkoon it ñu fekkante fi ñoom ñaar sëñ bee koy teg loola sëñ bi neen xam na ci lu kon nee na gëm na ko bu baax na bu fi nekkoon ñu nekk fi ñoom ñaar sëñ bee koy teg kon nag euh, ngeen dalal seen xel bu baax a baax. na mi ngi ñaanal sëñ Maam Moor moom sëñ Mourtala lu waa juróom naaloon rek mu àggale ko ba àggal lu kaw njottam ak naali boppam te ànd ko dong yëpp nag nan te yéen ñëpp ngeen yokk ba yëg ko nag. tàllal sëriñ bi ñaan bisimilah amiin baa ko jox wir doom minallaahi jaxsatan fa gànnaar ñu fab seen ruuya jébbal sëriñ tuuba sërif yaag sagam ya dengwa di ko ahmada nu jàng fi nag lim bu takk lool ci alxuraan ak xasiida daal di def xatmu bi def ñaan ci teewaayu Cheikh Sidi Makhtar Mbacké subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin al-faatiha alhamdulillaahi rabbil aalamiin jàmm amiin amiin amiin amiin jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke